mooy fexe ba ki xam ni dafay dund aw naxar mooy dund bu metti ca moom mu ñu fexe ba dund boobu ñu waxtaan ci ko ak moom indi ko fii ci ëtt Tooxiduna su ko defee kenn ku nekk koo jaar ci woon wala koo xam ni juddoogul man ko fay fekk su ëllëgee mu mën a bàyyi xel bu baax ci dundam lu tax ñu wax loolu moo di bari na ci réew mi ñoo xam ne dangay yaakaar danoo baax te nekk fekk ni baaxul bari ci réew mi ñoo xam ne danga yaakaar ne danoo jub mais nekk jubuñu bari na ci réew mi yoo xam ne ay gor yoo xam ne dañoo juddoo ci ngor màggee ci ngor yaroo ci ngor waaye dafay dem ko àdduna moo leen di teg loolu mooy numéro bi nga xamee ni saa boo ci wootee rek di ngeen ci mën a jot mbokk yi tey nag ñu indiwaat beneen tur bi la boo xam ni moom jot na fee jaar ñu bari nekk ci commentaire yi bëggoon tey ñu gën ko indiwaat ba kenn ku ne ci yéen ñu mën cee joxe xalaatam mooy waa ji nga xamee ni dafa bëggante woon ak benn xale bu jigéen depuis 1993 la waa ji wax ni. dafa bëggante ak xale bi tàmbalee di génn ak moom nee na bi muy génn ak moom daana ko lépp loo xam ni góor daf ko defal jigéen rek loolu bàyyi dara te ku ne xam ne tabaski bu jotee yaay jënd la muy sol korite yaay jënd la muy sol yenn saa yi sax nga may ko këri bi parfois sax am na góor ñoo xam ne ñoom ñooy fayal seeni copine seen njàngu école ñun ñoo yor seen argent de poche ñun ñoo leen ñoo leen defal lépp mais pourtant bi ngay def loolu ay parents ñu ngi gis ay parents ñu ngi koy dégg ay parents xam nañ ni soxna si dafay génn ak waa ji mais duñ la ma sax ne duñ la ko may wala bu ëllëgee soo paree dañ la koy may loolu lépp dina dox dara. dañu ànd ak seen doom ci lu ñuy wax xeetu macro nga xam ne xale bi daal day xëy rek di am lu muy indi yaayam da xam mais du xalaat mu jógee parce que waa ji la fekk mu génn xale bi dina ñeenti at mu dem ba yàgg mu bëgg ko takk parce que moom seen kër benn jigéen ne ko te am na yéene indil way juróom jigéen ngor mais bi mu demee dana di demander xale bi mariage xale bi la la ko wax pareeguma damay jàng même yaayee bi nga xam ne xamoon na ne waa dafay génn ak dafay génn ak ak ak doomam moom xam na ne sax moom ni doomam fas yéene wul sëy ak xale bu góor bi mais di nangu ko seeni doom yi jigéen di génn ak ay góor te mu xamul te ñu xam ne góor kooku gën a ma sa parce que mu ci am kon loolu góor ñi war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci bokk boo xam ni dana koy bokk tamit waxtaane ndax bëgg na ko ñetti at ñaan na pour ñu may ko ñu bañ lan moo tax ñu bañ bañ na ko gëstoo dëgg-dëgg xam nañ ko parce que xale bu góor bi seen waa dañoo néew doole moom xale bu góor bi temps yooyu muy ñaan xale bu jigéen bi pour def ko soxna mu ngi doon débrouiller parce que magasin la woon mu ngi doon góorgóorlu mais amul. comme Sénégal nag bu fekkee amuloo seen kër amul mu demee noo xam ni ñaare xëy na sax yàlla la ko teg bari jigéen buy bëgg doo ko am duñu la day dal bari te pourtant dañoo bay parce que mbokkam yarul fari bu muy génnanteel yarul waaye xale bi kan ko mujj ëmbal kan ko mujj ëmbal mooy parce que yor kon cas bi rek mu ngi bëgg a firndeel ne ki nga xam ne moom dafa yor saa ne dafay am doole trop ci bi nga nekk bi ñu nekk bi nga xamee ne nii te pourtant ay ñu nekk ay biir biir ñetti góor lañu pourtant ku góor bu njëkk bi amul te pourtant na ak ndaw ci ñeent keneen ki nga xam ne mbokkam la amul te pourtant génn si waaye yàgg na ko bëgg bu takk ko ñu bañ mais kan la ah xale bi àndal kan la yaayu xale bi àndal mooy faral bi nga xam ne am na xaalis fan la mu jël moom mujj na ko doxaan ci dir bu gàtt waxuma sax takk ko mais def ko mujj ëmbal dafa mujj xale bu góor bu am xaalis naxtaan ak moom nekk ak moom ba mujj am ak moom doom waaye ne bi mu amee loom ba pare li ci gën a yéeme mooy dafa laal te ne du ko takk kon yaay yi war nañoo jànge ne xale góor yi nga xam dañoo am xaalis waaye sax parfois dañ leen di incarne ay moy nga bàyyi ko sa kër sa parce que da nga yaakaar ni sa doom xaalis bu lay indi yow yaa ngi ci bànneeku te xamoo ne yaa ngi ci danger yaa ngi ci danger bu doy waar boo xamee ni amaana loolu fa mu yóbbu xale ëllëg ak yow mii yaay moom la yóbbu amaan na loolee du nekk ñu gën mu nekk première fois 818 37 56 saa boo la wootee rek dañ mën a waxtaan ci boobu la ponk amaana ngeen wax ci seen xalaat loo xam ne moom mi ko dund dana ko mën a jariñoo moo xam yaayu la moo xam góor gi la moo xam tamit ni donc euh, moo xam tamit donc tamit ni ku jigéen ci la am na koo xam ne fa nekk ci ligne kon yaakaar naa ne dañ koy jël rek euh, mën ko déglu salaamaaleykum ku baax bi asalaamaaleykum ku baax bi ñoo ngi lay siyaar mbaa am rek waaw fa ngay wote ah daa wote Belgique ah Belgique ngay wote naka waa Belgique yàlla na ko suñu borom yokk bu baax a baax naka nga def ak koor gi barki borom yàlla na ko mbaa yaa ngi saan émission bi hmm? dëgg la dëgg la tey dama ko xaar dëgg la thème moom thème moom am na solo bu baax a baax ndax euh, tey Sénégal li nga yaakaar ne amul rek nit ñi ñoo ngi koy dund dëgg la buñ ko génnewul rek nit ñi duñ si xam dara dëgg la mais nag lii rek lool sax dëgg la dëgg la dëgg la ndax ki nga xam ne sax moom moo dund kaa bi mhm. ma nga yaakaar naa su ma jumalee ma nga Espagne Espagne dëgg waaw mu nekk nag cas boo xam ni dafa yéeme trop mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko commentaire yépp ñu bari dañoo jox waa ji toor jàpp ni daal ni ba muy bëgganteeg ndaw si daal dafa antoon sagoom loolu nag mu mu mu nekk ñeneen tamit wax ni yaa ji ci boppam moo makaroo waa ji mu nekk loo xam bari Sénégal trop sax quoi. ndax yaakaar naa nit ki moom boo xasee ba bëgg rek. am na am na lépp ñu ngi koy gis te ñëwagul. boo jiitalee sa mbëggeel nag loolu gis. xam nga xam nga xam nga daguma la. yu bari lenn moisir seen jafe-jafe. Mm-hmm. bu ñu bëgganteeg jigéen ñaan. te moo ne gis na bi koy ñaan pourtant yaayu xale bu jigéen bi dafa xamal na leen ne xale bu jigéen pareegul ndax day jàng. moo ma wax ni iska ji. xamoon na bi ñuy génn ñoom ñaar ne du ko may xale bi kon mënoon na ko teel a wax loolu. xam nga yaay yu bari tamit ñoo dugal seen doom ci yu bari. Mm-hmm. waaw loolu daal vraiment mu nekk loo xam ne kaa bi loolu sax bokk na ci li si gën a yéem a dëgg-dëgg. waaw loolu moom boo seetloo léegi dafa bëri Sénégal moom. suñu mm-hmm. suñu réew. exactement. boo seetloo na fa lool lool lool lool. trop. te lépp lu ko waral rek mooy jiital sa mbëgg yow. dëgg la. te léegi boo seetlee réseaux sociaux yi tamit. dëgg yoo xam ñooy defar. lu nekk lu nekk ak lu muy bëgg ak yow li ngay bëgg. may la ma ni ma ni. waaw am na benn moodu moodu bu ma woo bu ma xamal ne. ndaw si mu takk daana ko trois cent euros la ko jox par semaine. pourtant sëyilu ko mhm. loolu tamit na si mais man nekk dama xam ban côté li ma yaakaar mooy yaay yi mhm. yaay yi tamit vraiment lu bari ci ñoom lu bari ci kaay yaay ci yaay lay doon loolu dëgg que parce que bu fekkee danga am doom mu nekk bitim réew mhm. ak ne Europe méttee muy liggéey di góorgóorlu war a jël soxna amoo ci dara loo ko dugal loolu ci jigéen boo xam ne xooloo ko bu baax a baax koy jox te li gën a yéeme mooy ndaw si du ko mas a conseiller mukk ci mu tabax kër mbaa mu def ay projet mukk liggs bëtee télé bu rafet lal xeetu demee noonu yëpp nga xam loolu dafa doy waar hmm. xam dëgg fa dafa sutur la dëgg la ndax da nga dem pour uti ji hmm. xamoo ni ndax dina neex wala du neex dëgg la te xamoo ko mais boo xoolee tey suñu jigéen ñi tey dañ bëgg dund bu luxe. dafa doy waar. xam nga loolu mooy erreur bi. foofu mooy erreur bi. parce que jigéen ñi fekk nga toog huit ans xamoo si lu mu ne. tas. nga ñëw un bonjour gis ko rek. sa xol bi laajaat si moom. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la. def na heure la ku baax kii. man émission ba mu ko dégloo. ba mu ko dégloo. déglu ko. mu gis na dafa soxna si. jékki-jékki bàyyi ku mu takkoon aaw ku mu takkoon. dafa yéeme bàyyi naa bàyyi soxna si. dafa yéeme dafa yéeme. pour mu nekk mu nekk lu ko neex. day na waar. baax ko yoon tur nan la. man Amath ñu ngi lay ñu ngi am mbégte bu baax ci yow. xam naa ligne bi ligne bi moo xaw a saturé. waaw vraiment am naa ci yow kontaante bu baax a baax a baax a baax a baax. nuyu na waa Belgique yëpp bàyyi leen xel ni chaque ajuma daal. chaque ajuma incha allah 15 heures à 17 heures. dinañ indi ben thème bu am solo mën ko waxtane bu baax baax seen émission auto Tooxiduna incha allah kontaan naa bu baax seen waa Belgique bu baax amet yàlla yalla yàlla fay yow yalla yalla fay yow kontan na baax kay am na solo barke borom Tuuba Akasa Akasa kontan nañu kon mbokk yi dégg ngeen waa Belgique ñong leen di nuyu baax di am bëgg ci ñoom ak kontaan bu baax a baax a baax a baax te xam ni ku ne ci ligne bi rek ñu ngi koy jégalu baax ta xamni ligne bi mo xawa satiré saturé ni ay sopp ngeen baax ci seen émission auto tokhiduna auto bi nek yag ngeen bëgg ñu def ko direct waye xamna ni jalbeen boo gis day sew ta dañ ko and ak yeen bu baax bu baax baax baax and ko mbekté kon bu leen fat numéro bi 77 la 818 37 56 ñu nga xaar ku dugg rek ñu mën la jël mën a waxtaane tomb goo xam ne dafa am solo lool su suñ société bi moom mooy entre jigéen ak góor ak way bëggante yu yàgg yoo xam ni buñ leen dimbaliwul jëye mën naa am ndax kaa bu ñuy waxtaane tey gis ngeen sama ci toll woon waa ji mujj mujj na ñaan ndaw suñu bañ def na lépp yónnee ay bokkam ñëpp bañ waaye nekk taxul am na keneen koo xam ni moom moo ko takk kon dañuy jël ci ligne bi rek mën ko déglu bu baax a baax assalamu alaykum mbok mi ku bax ki ñong lay siar barki borom Touba ndaysan fan ngeen di wote Italy Milano tribunal la ko bax ki Modou Diagne Modou Diagne ñu ngi lay siar bax baax Diagne waa ñu delloo siyaar jaaj jaaj daa mel da nga añ ba noppi de. ah ah non non dama yaakaar da ngeen añ ba noppi de. acca boobu jaaj mais jaaj kontaan naa ci yow. barki borom Tuuba. ndeysaan ndeysaan ndeysaan amin amin amin Diagne sëñ Diagne sëñ Diagne sëñ xam nga lu ñu tax a jóg li tax a jóg mooy kenn ku ne fu mën a nekk ci àddina bi rawatina moodu moodu yépp ñoo xam li xew ci àdduna bi xam nga dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la ndeysaan jaañ maanaam raw ah xam naa kon dañ leen bàyyi parce ndaysan xamna dina ñew ñëw ñu ndogandoo ensemble billahi kontaan na jaan yalla na fay yu ma ngi lay sar yalla yalla fay yu jaañ ñun ñu way etal yëpp Milano yëpp ñu ngi leen di siar bax ndaysan mu nekk suñ soppe gu am solo bo xamni ma nga nekk bitim rew ni ko yag waxe rek xalé bu ñàkkee bitim rew dund ga day metti ci trop waye nak ngal émission bi nga xam ne moom mooy émission ëttu na dana leen mën a jox lépp li nga xam ni da ngeen ko yittewoo foofa di ay faits divers di njariñ loo xam ni kenn ku ne ci yéen war na koo mën a jariñoo waaye nag ni ma ko waxee léegi rek ubbi nañu leen bi bëgg kenn ku nekk dugg waxtaane point bonk bi nga xam ni moom la indi mooy diggante xale yi ak ka nga xam ne ñoom lañ bëgganteel loolu moo waral ñu fas yéene joxe numéro bi mboolu moo tax ne foo la mën a nekk ci àdduna bi rek mën ngeen a woote te xam ni daana ko yéen la ñuy déglu salaamaaleykum ku baax ki maa lay siyaar waaw waaw waaw man maa ngi fii Finlande sénégalais laa maa tudd Adama yaa ngi tudd nan la adama jank ma ngi lay siyaar ah, la def ma ngi ni jël la ah, ni nii fekk mo tablette deug le deug le lu waaw man dama am problème boo xam ne nii nga jox ma numéro bo xamné dama lay ko ma expliquer la man sama bus ah ndaysan wa da ngay jël numéro bi 77 waaw moy 77 818 bi ah waaw 37 56 wa da ngay bayyi ci kanam tout rek nga avoir message ci vocal. Ah. da ngay bayyi ci kanam tout après émission bi. waaw bu direct bi jexé rek nga envoyé message ci whatsapp. waaw après inshallah allah gis nañ waxtan inshallah allah su nexé yalla euh ah, inshallah Rabbi. wa me ku baax kenn mën naa la de. waaw maa la raw ma la raw ñokay bi nekk la. na ko waa julli ñaari rak fajar war na la ñaanal yalla may ndaysan ñu bokk ñun ñëpp ndaysan ndaysan ñu iya, bokk ñun ñëpp ndaysan waaw ah, parce que li ngay def ni jaamu yalla la deug le yalla ko yalla ful fo tol amin amin ñu bokk ñun ñëpp bu baax man nak amna problème bu xóot xóot bo xamanteni ni ndaysan xamna xam naa jot rek man ma woo expliquer le manis insha allah mais xamna naa yalla ko bindul sama jëf passé na ko yalla ko bindul sama jëf mais day nekk lu nekk sama xol mom marqué ko yalla safara barki serigne touba ndeysaan waaw deug ya day dafa trop na trop en war a liggéey moom képp di dundal téeméeri nit ku tukki bàyyi fi yaay ah. bàyyi fi ay bàyyi fi bàyyi ah. bàyyi fi mbokk moo xam ne ba ngay tukki ñépp dañu yaakaaroon boo ñibbi seen lépp dina rafet yaa may dégg coono coono boobu rek ndeysaan ma ne coono boobu rek daanaka ko doyna febar waxatuma la nak yenen yéene ak yenen natt yo xamni nit yalla ngou tek sen kaw mu gëna metti lool waaw waaw xam nga choona yor jabar dafa metti yalla mhm. man damay jël yalla duñu tek teg la laxaar bi dalaan ma ba weesu yàlla ko bindo ci sama no obstacle la ndeysaan bu ma raconté rek bi ndeysaan mais dafay des ci suma xol mhm. parce que dama amul soxna hmm dama nekkoon bok senegal ba ci mu am sax ñaar téeméer. ndeysaan ndeysaan. mu hey doy na waar. aha. Ah. ndeysaan. jam lol day na war de day na war xamna ni xamna ni amul may def xamal may def dama lay bayyi nga jël numéro bi ci suuf bu émission bi jexé dinañ déggante mu nexé yalla kontan na ci yow siaral ma gaa yépp ma ngi am mbégte kontaan ci yéen ñépp barki borom Tuubaa Ah, am nañ ci mbékté bu baax ziara ba sonna ci bu baax né ko mang koy nuyu. waaw ah, jërëjëf jërëjëf ñu ngi ziar baax ñu ngi am kontaan bu baax xana après njëgët inshallah allah su neexee yàlla. bu soobé yalla bu émission bi jeexee maa ngi nii di ko seetaan. incha allah su neexee yàlla. inshallah allah kontaan na mbokk yu gis ngeen gis ngeen ki nga xamé ni mom mo nekk finland doomi rew mi fu nek ñu ngi woote ba islam tan liñ wax liñ bi dafa xawa saturé trop ndax fe yi nga xamé ni émission mu koy indi ci biir rew mi boko waxé day melni ñepp la dal mbir mo indi rek day melni ñepp la dal ndax gis ngeen kërok bi mi ñaané jé jee ci kërok keroog yaayam dal di bañ ndaw sa nag mujuna na ñu ëmbal ko kako ko ëmbal nag ñëw na yaayam wax mu bañ gis ngeen suñu yaay yi nañuy doxale nan la sa doom di bëggante as gor di ko baax di ko yàlla baaxal di julit piir àqan nga mën koo xeeb xeeb li mu yor xeeb ay mbokkom ba tax nga bañ ko may sa doom doom jooju tey indi na la beneen problème boo xam ni kenn xamul fu nu koy jooyee waaye nag bu ñu dossier bi huit ans après mën na wax sa maanaam quatre ans après xale bu góor ngir mujj na yàlla def mu dem Europe dem tukki foofu nekk dama fay xaw a taxaw tuuti ndax bari na xale yoo xam ni bi ñuy jóge fii bi ñu fee nekk dañu amoon fii ay jal yi ñu daan génneen dañ fi amoon ay couple dafa amoon yu ñu daan bëggante ci biir réew bi mais amoon buñ demee ñaani dañuy bañ lan moo tax parce que àdduna bi jigen ñep materialis, xaw materialiste ñaata nit ñoo bëggante jigen ñu bañ parce que amuñu parce que ko yaruñu parce que yalla dogalul ay wërseuk dajé ci ñoom waye xolal après ñent at après day nak benen jigen bu baax bu ko comprendre bu ko bëgg trop ci limu am xoluko waaye ngorom la xool ak bëggeelam mu mujj sëy ak moom xale bu jigéen bi mu njëkk sëyanteel wax na ne xale bu jigéen boobu benn mbokkam la nu ko may boo xam ne bi ñu ko mayee dañ ko muur bu yëpp ko gàmmi bu dem sëyi gàmmi waaye nag kii gis ngeen ko léegi takk na beneen jigéen waaye jigéen boobu mu takk nekk ba léegi nee na ñoom ñaar jubóowuñu ba fi may wax ak yéen nii mujj na ànd ak moom mais ba léegi daal daanaka ñu ngi jóge ko daan dem na ñaani ko xale bu jigen bobu am ngorom am dignitéem di julit piir akam ay mbokam waxtaan bañ may ko waji waji nak ma ngay continuer di gorlu tubaarakàlla di dimbali yaayam di dimbali bayam yalla nak may nako benni benn soxna yalla dogal nak banu amé dom la tañu am dom rek lenam ci la jëgé ci réew mi fi Sénégal dem Espagne mu nek benn mbir mu doy war ci xalé yi nga xamne ñoom ñooy jóge fii dem tukki bu fekke da nga dem tukki nek Espagne wala nga nek France wala fo mëna nek ci aduna bi man dama sétlu xalé yi bari bu démé Europe la ñu ñëk xalaat seen xel moy soxna ta pourtant su fekke sama xel bu gatt ak li nga xamne mu war a njëkk ci gur yalla mom moy fexé ba mo am lu mo moomal bopam moy mu fexé ba nga xamni dafa am kër bo xamni war na ko mëna taxaw war na ko mëna def bu leen fàtte nek numéro bi nga xamé ni mom ngeen ñu joté moy 77 818 37 56 numéro bobu sa bo ñu ci woté rek da ngeen mën dugg ci émission bi direct ñu mëna waxtaan li nga xamni mom moy tomb bi nga xamni mom mo fi nek waye nak yalla dogal na xalé bi dem na tukki nek Espagne mais bo nek Espagne di liggéey mais téléphone nan nga ci mën a wax wax ak jigéen ba xam ko soo nekkee tukki nan nga mën a wax ak jigéen ci téléphone ba xam jikkoom ndax xam jikko nit ki fa nga taqu ak moom mais dem tukki rek am xale boo gis réseaux sociaux bi moo xam Facebook la moo xam lu mën a doon nga fexe ba jël kot dam ngeen di déggante yéen ñaar di wax sa benn xarit dama koy xoolal loolu lépp dara wóor ci waa ji nag looloo ko mujj dal lan moo ko mujj dal mooy xale bu jigéen boobee nga xam ni moom la bëggantale woon demoon ñaan ko ay paanaawam bañ ne duñ ko ko may beneen góor boo xam ni daf koy may xaalis la xale bi mujj ànd ak moom kooku mujj koo ëmbal ne du ko takk beneen mbokkom boo xam ne mosoon na ko bëgg ñu bañ bi xale bi amee doom dañ ko woo ñu may ko waajooju waajoo bu gàmmi mu sëy xale bu góor bi nag xeyna na moom bëggelam lay top 4 ans après amna jabar bayi fi soxnam dem tukki bitim rew ba mu demee bitim rew nek bàyyi na fi soxnam mu ëmb waye nek bi soxna si amee doom ci ginaawam dafa sàpp won pour ñu jël jabaram ci boppam muur ko ci après xew bi mon ko andi bir kërëm mu nek benen jeeyé bo xamni ni jëye mu mujj na indi ay jafé jafé lutax ki nga xamné ya ko tak mu am dom sa ginaaw kon gis ngeen ni am na xamné mu ngi ci liñ bi ndax xamna naa dafa xawa yag mu dañu jël ko ba xam mu nek lo xamni dafa dafa dafa doy waar trop dafa yeme ci suñu rew mi nek lo xamni yag yàgg ko gis ci ci rew mi salaamaaleykum mbokk mi. allo salaam ku baax ñu ngi lay siyaar. waaye ñu ngi delloo siyaar na def waaye na nga fi jàmm bu baax. sant yàlla gu wér ku baax ki ah alhamdulilah émission bi du ma ko raté de ngi fii ko jëlal quoi bés nekk dama koy seetaan. yàlla na la yàlla fay yiw. amin amin amin nga ci wax ay wax ju am solo ju am solo ju ndey sar ñu bok parce que ma ngi ni doga wacc ni sax dama ñew rek tay gis la en direct quoi deug la parce que demb la deg nga ko don wax quoi deug la deug la mi fa mom amna solo torop torop torop torop torop torop parce que amna ñu bare ya, dal yo xamanteni dal vraiment mom nit ku ko siir dank ci jélé quoi barki borom touba ndey sar yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay vraiment yaa ngi wax lu am solo daal loo xamante ni vraiment. Mm-hmm. ku ci déglu rek da jën ci jële njariñ quoi émission bi njariñ ci sa la ah, na mburu ah. non donc moom bare quoi bare na trop. doy na waat mais ma mais du gars yi duñ duñ làkk yi di lekk rek. waa moom. xam nga waji seen mbokk la xam nga waji seen mbokk la quoi immigré mom xam nga rek dafa doy waar xam waji seen mbokk la quoi parce que mom dafa bëggoon xam nga mom dafa bëggoon tek ndaw si waaw gis nga gis nga xam nga dafa bëggoon tek ndaw si après donc ndaw si eh, mu ñaan ko ay parents bañ mais après huit ans dafa demaat takkaat ndaw si. ah mu dem takkaat ka. huit ans après mu takkaat ndaw si après mujj bi ndaw si tamit daanaka ut appartement ay faramak xam ah, dafa day war. waaw boobu maa ngi doon déglu barki démb. ñu indi nag ko tey nag. eh boobu moom moom moom boobu. waaw vraiment. Uh-huh. moom waa moom waa ji moom moom waa ji la quoi. ci nan non jigéen wax dëgg neex yàlla. kaa bi boo gisee ni mu demee nii. waaw. waa ji moom mënoon na sipsone ba mu doon woote fële noonu ba mu doon woote ci fi ndaw si doon liggéeyee ñu koy wax naa ndaw si nangam ak nangam. dëgg la. benn gel noonu ni ko sa waa ji la. kat bu lay woo rek mu ko ah kooku bu wax fu ma nekk sama jëkkër la affaire yooyu. xam nga dafa day waar. loolu moom boo dëgg ne yàlla bu dugg jigéen waxee. ah mais mais ah. am nañu wax ni am nañu wax ni waa ji wah la topp waaw waa ji moom bëggeel mais am dem nag bu am solo boo xamante ni mooy ki nga xamante ni dafa andi wah jabar wah bi waaw waaw waaw waaw oh kooku moom sa waay kooku jabaram jooju gor la quoi billahi wallahi taalaahi kooku jabaram jooju gor la parce que jigéen di nangu loolu si jamono biñ toll tembi nii dafa yéeme yàlla dafa yeme trop trop trop trop. Ah, boobu moom dama ko doon mais mais mais mais mais gis nga gis nga fi mujjee. waaw xam nga bu fekkee. am na loo xamante ni bu ko def mukk moom am ci résultat baax. parce que daf la nangul yenn yi nga ko wax rafetul. am kontaan ak. mbégte lool ci yow allo waaw man ne maa ngi am kontante ak mbégte ci yaw lool ah, maa ngi lay bëggee sa gaay yi ñoo bari lool ci ligne bi mais yow dañuy dañuy déggoo incha allah bu neexee yàlla dégg naa ci yow yàlla yàlla fay yiw mais nak bëgg na ay mburu ah bëgg na mburu yi bari quoi mburu. <laughs> non problème ñoo far yaram. ba ñoo far yaram kontaan na bu baax. jërëjëf waay yàlla yàlla def jàmm. amiin ñoo far jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. allo ku baax ñu ngi alaykum salaamaaleykum. alaykum ku baax ma ngi lay allo allo waaw. maa ngi sant yàlla bu wér ku baax kii sant yàlla. waaw di rafetlu waaw ngi lay siyaar baax ku baax kii ma noo gisee kaa yàlla kaa bu ma ah waa de ah doy na waar de waaw non man li ma bëgg kay xam nga bëgg émission li ma bëgg mooy kaa bu rek ñu indi ko émission spéciale ah émission waaw kaa ne ñu indi ko émission spéciale bu defee ñu mën ci dugg mën ci ko waxtaane bu defee bëgg na am njëriñ na nekk waaw loolu ah, dem na kon mbokk yi gis ngeen daanako euh, ligne bi dafa fees del waaye soppi yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy safoo émission bi yëpp partout dans le monde kenn ku nekk mu ngi bëgg dugg waaye xam ngeen ni euh, li nga xam ni moom moo am yéene ci émission bi li nga xam ni moom la ñëpp bëgg daanako day xaw day war pour kenn ku nekk am ci li bëgg waaye nag lu jógul jeexu fa émission bi dañ tambal diko def aljuma bu nek direct digënté 4 h ba japp 5 h ba 6 h nima ko yag waxé rek ëttu Tuuxiduna bi nekul émission bo xamni dañuy wër nit ki déedéet nekul émission bo xamni dañuy ubbi sutura jàmbur déedéet liñ taxaw a rek lenn kep la bu fekkoon émission bi ni ñu nit ñi di joxee seeni i tooxi na wala sax seeni jàngoro noonu la koy waxtaanee boobaa du neex a dégg boobaa du génne ay njariñ loolu moom moo waral yenn saa yi nit waxuñu loo xam ni dañuy tànn li nga xam ni loolu muy jural njariñ askan bi ndax bu fekkee Afrique dafa metti ci wàllu lekk dafa metti ci wàllu dundin ñun ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu média bi bëggu koo metti lool ci ay information yu négatif ay kàddu yoo xam ne rafetul mun naa indi jëyee ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew kon nag émission bi mu ngi dem ci jeex waaye balaa ñoo dem nekk dañuy nuyu bu baax waa Europe surtout maa ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, euh, wàllu côté Europe boobu ndax sax su ne dañuy déggoo ak ñun rafetlu loolu liggéey bi képp koo xam ni yaa ngi ñuy yaa ngi xool vidéo yi ñoo ngi lay sant bu baax dem am ci yow ngërëm dina wax tamit ne numéro bi nga xam ne moom mooy toujours moom mooy jaar ci bande l'écran bi wala numéro bi nga xam ne moom mooy 77 818 37 56 saa bu ñu ci woote rek di di mën a jot su ko defee dinañ bokk gu yéen liggéey bi nga xam ni moom lañ fiy def fi ñuy daan leen nag moom mooy seen place point com di télévision boo xam ne li ko yëkkati mooy jariñ askanam waaye jógul pour di jariñoo ay askanam déedéet mooy fexe ba lu baax fu mu nekk ak foo la mën a nekk rek ñu fexe ba jël loola indi ko traité leen ko jox leen ko kon yaakaar naa ni dañ leen jox dig daje ba beneen yoon beneen aajuma même seen même heure même daawre mi nga xam ni moom moo koy présenté kon nekk ñu ngi gërëm bu baax a baax di sant bu baax a baax suñu DG bi nga xam ne mooy seen Bachirou yéene gi mu am ci réew mi yàlla na ko suñu borom fay yéene gi mu am ci ñëpp ñoo xam ñoo nekk ci àddina bi pour kenn ku ne mën a jariñoo xam-xam bi nga xam ni moom la am kon jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf